non Mbëbës lakk daana fi am lakk lakk moom daana fi am mais gii gii lakk gii nii moom lakk gu mel nii moom mosu fi am lakk gumel mel moom même man ñi ma fi njëkk sax boo leen laajee dina lu mel nii moom mosuñu ko gis Mbëbës bu may dugg laa dajeeg machine bi muy jege ci kaw di wàcc di daw machine bi machine bi xëy fële bii xëy ci plateforme bi moom laa njëkk a dajal muy génn ma ne lu xew ñu ne kaw jal bi dafa boy ma ne a ah, kaw jal bi dafa boy tey journée bi yàqu na moom xëy du am instant yi ma tooree sama xel day jékki-jékki rek ñu yar ci moom mu ne waa lii mbaa jàmm la est que amul xew sama ginnaaw te yëguma ko ma ñëwee ma daal di tëdd ba suba si noonu sama doomu jigéen bi daal may yaay bàjjen de wàccul ma ne ko bàjjen wàccul bàjjen bu wutee dogaas fii ak 5 rek day wàcc kon de am na lu xew. lii lépp dafa lakkan dañoo dañoo dañoo defaraat place yi rek waaye lii fii dara néew fën bagage moom amul lu génn. man tiim ma jëm de kii bi armeel bi de moom tiim naa ko waaye tiim ma jëm Amen.